bismillahi may tagg mbër soxna jaara mooy ndey mbër am na mbër mu fi fali mbër soxna soosa moo rëy mbir bismillahi may tagg mbër soxna jaara na mbër mu fi fali mbër soxna soosa moo way ndax mu may ñu may ab géwél bu ci dëkke way ngeen ñi géer du jeel ak may Cheikh Bamba moo ñu ko way jaara nga ñi way faluutal ko mën ñu ko way ndax jikkoom yaa rek kanu doy maam jaara Cheikh Moussa Ka daana ko way Cheikh Massamba Ndiaye di ko way moo waral ma jóg di ko way ngaa yu baax ya ñoo jara roy Penda Ñang lañu may wooye may géwél bu may may yu yu jënd ko way soxna jaara far bañ a bàyyi soxna jaara moo tax Mbàkke baali dootunu bay waa mosoo bi dootunu bay te yowmal xiyaam dunu lay maam jaara maam jaara ay jikko ak taaram am ci kër maaram ak mosoo be baayam yàlla sakku tak maasam soxna jaara am tax na di sunu courant bi nu am te jigéen ñu nekk am lampi gaar toggee ñamam maam jaara wal gu magu gamu daawal moo waral masi wal déggatoo fi kurang njël déggatoo fi kurang njël sax te foo taxawoo am njël maam jaara xéwalam yi naan wala lal jàngkat yi naan ngalalal rajo yëpp naan tëlëlël moo waral moo waral ma naan ngalalal xéwalam yi naan wala lal jàngkat yi naan nga lalal rajo yëpp moo waral moo waral ma naan mbalka yaa ngi naan xërërër waa ngi naan xororor ceebi cararor sunu daraay diririr maami siñ yaa waral mbalka yaa ngi naan warga waa ngi naan xororor ci gu jëni naan carar sunu daraay naan dirir jërë ngeen jëf dal waxal min allahi badi xayrum dunya wa ma fiha jami